Mbàkke gannaaw bi ñu defee kii mu ñëw positif ca ba léegi tëriwul nit ñaa ngi dem ci di dugg ci oto yi ci Mbàkke Tuubaa yi ca ñoom duñ takk ay ay masque mhm. nga xam ne mbir mu doy waar la te Mbàkke googu am na am na deux cas maanaam nit ñi dafa mel ni bu dee fii loo boo seet dafa mel ni ñoom virus bi daal dafa mel ni yëngalu leen parce que da gis ni ñi ngi dajaloo bu dee couvre-feu bi itam ñoom ñu bëri respecté wuñ ko ñu ngi toog seen buntu kër yi mhm. maanaam il daal il faut pour pour ñu respecté ko il faut daani gën a loolu moom faaw day am daani day gën a tar ngir ñu respecté yu ni mel mais boo mhm. xool daal fi xëy na ak dogal bi nga xam ni nga Aliou Ndiaye génn waat na ko dana tax daal ñu xaw a respecté masque yeeg yu ni mel loolu nemmeeku leen ko fi bu fekkee ne ci Touba la mhm. euh, ci marché Ocass yaa ngi mhm. gis nii ñi ngi waaj a tëj marché bi gannaaw bañ ci amee ndigalul xalif général préfet sax daal dina koy wax góor gi mbay nee na dinañu tëj marché Ocass waaw marché Ocass bi dinañ ko tëj ca da ngay fii à fois da ngay gis kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllu wàllu santé bi di yëkkati ay cadre di sensibiliser jëme ci askan wi mais askan wi dafa mel ni ñoom dégguñu loolu te nag virus bi kenn ku nekk yaa mën a aar sa bopp bu ko defee aar ñi nga xam ne ñoo ñoo la jege mais bu fekkee ni fii daal moom ci Touba daal xaw na sensé gannaaw bi nga xam ne dogal bi Aliou Ndiaye jël na ko yaa ngi gis nit ñi ñi ngi takk ay masques. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. lu lu jëmit ci wàllum sensibilisation bi est-ce que ñu ngi koy euh, def bu baax parce que gis nañu ne euh, lu toll ci quatre communauté euh, quatre cas communautaire amoon na foofu ca Touba est-ce que tamit à part port de masque yi lu jëm ci wàllum raxas loxo yeeg respecter distance yi ak yooyu ña ngi koy doxal foofu. bu dee distance nit ñi respecté wuñ ko bu fekkee ni man li ma gis nag laay wax bu fekkee ni distance nit ñi respecté wuñ ko bu fekkee ni sensibilisation ay gis ni daanaka kilifa yi nga xam ni nga yëngu ci wàllu politique ñu ngi koy amal. Mhm. nit ñi sax dem seen kër sax fekk fa gel. problème la nga dem nga dem ci kër nit dem fa dugg ba fekk fa fekk fa seen ak saaboog yooyu problème de fii mhm. moom gisuma ko fi euh, bu fekkee am na ay cas communautaire yoo xam ne am am na fi am ñoo xam ne benn waay boo xam ne maa ngi doon déglu ci benn rajo à la place mu juróon mu juróon wax ni moom dafa amoon dafa am cas communautaire cas communautaire la bokk léegi muy wax ni bi nga xamee ni euh, yóbbu nañ ko ñoom ñu koy faj ñu ngi koy mais waa këram moom moo ko jaaxaloon parce que waa këram ñu ngi ko ñu ngi leen mettroon en quarantaine mais ñu toog amuñu lu dem te am naa ci benn surtout boo xam ne mu ngi nekkoon foofu ci Médiana ci benn place ñu wax ni moom ak moom foofu ñëw jàkkaarloo. Mhm. maanaam ma maanaam affaire yi dafa xa dafa xaw a parce que ñoo xam ñu ngi leen defoon mettre en quarantaine ñoom ñu ngi moo tax ñu nii cas yi gëm naa ni ci kanam dana gën a dana gën a kii Touba quoi dana parce que nit ñi respecté respecté wuñ dara ci kii bi ci ci ci li am Touba ci cas yi muy masque yeeg sensibilisation moom yaa ngi gis ni am na ñu koy def. nit ñaa ngi koy def mais ñi ci gën a ràññeeku mooy politiciens yi ak politiciens yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñoo gën a ràññeeku. Mhm. te itam bu fekkee nit ñi nga am ay gel ak yooyu jafe nañ nga romb nit tax mu yor sel wala nga dem ci këram fekk fa sel loolu moom jafe na fii moom. xëy na du ñàkk bërëb yi nga xam ne mooy marché occas ak yenn marché yi ak yenn place yi ñoom xëy na ñoom dinañ yor ay gel ak yooyu ñoom dinañ ko yor pour xool am na ñoo xam sax ñu ngi yor ngi yor ñu ngi yor ñu ngi yor yu ni mel nga xam koo xam ne ñëw nga ci place bi daañu la test xool ay benn benn sensibilisation bi daal moom ni ko fi def daanaka politique politiciens yi leen wax ni moom ñoom la ñoom ñoom laa gis ñoom ñuy génn ñu ko def bu dee ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi ñoom jafe na nga dem ci kër fekk fa fekk fa fekk fa saa boog ordre jafe ak ñoom seen. Mhm. Uh-huh. Euh, Pape Maguette ba bàyyi la ak Bamba. Bamba. waaw Pape waaw ñu ngi. maa ngi lay nuyu maa ngi maa ngi lay siyaar. alhamdulilah. Bambey autorités yi comme que euh, tubaa dafa am benn statut spécial est-ce que tey euh, am na kilifa yi nga xam ne ñu ngi jóg di wax ak askan bi comme bu ñu gisee ne ñu bëri respecté wuñu li nga xam ne moom mooy euh, geste barrière yi. Paa Maguette nag bu ñu waxantee dëgg fi mu toll kilifa yi nga xam ne ñoo waroon a jóg sax di sensibiliser askan wi ñoom daanaka fu mu toll nii dund bi lañ sal maanaam ceeb bi nga xam indi nañ ko daanaka sax boo xoolee nit ñu ci bëri fàtte mhm. loolu moom du am la moom jërëjëf mm-hmm. jërëjëf. Bamba ñu ngi lay jëfal ba suba ci beneen point de situation. jërë ngeen jëf.